defe naa ni dat bi ñëpp di xaar bokk na ci euh, combat euh, Modou ak euh, Siteu ban jàngat nga ci am Aziz bon <laughs> buri yaa ngi dugg ci combat bu am solo muy combat royal entre le Roc des Parcelles Assainies muy Modou Xarañ Lo tey ji ginnaaw bu mu jógee ci ñaari ndam ci benn saison mm-hmm. bu mu daanee le fils de Falaye Balde Ama Balde daan aussi le fils de De Gaulle Boignan numéro 2. Mhm. ñu càppaacoli bi. Mhm. mu nekkoon tamit des victoires importantes bi nga xam ne kenn yaakaaru ko woon mais c'est la même génération ko xam Modou Lo différence d' âge bi yow du ay 3 ans 4 ans ou 5 ans moom lay doon. Mhm. et que mu tamit mu nekk un combat. Euh, combat bu neex la nar a pourquoi mu nar a doon combat bu nar a neex c'est-à-dire Siteu c' un lutteur qui calcule. Mm. boo xoolee dañuy combat am ak la de numéro 2 à chaque fois dafay négocier combat am il prend son temps et que c'est un lutteur qui mun naa wax ne c'est un mathématicien du daal di jël ay risques yu bëri bu jëlee risque rek dafa fekk daal am na bunt bu mu war a saisir. Mhm. bu mu war a euh, dem mun ko exploiter. Mhm. et que moom dal boobu mu ngi si moom. alors que nag dama xamul nag ndax Modou à chaque fois que muy bëreel euh, kooku dafa daal di dëj làmb c'est-à-dire c'est un lutteur boo xam ne mënoo ko calculer immesurable. Euh, tey jii Modou Lo buy ñëw si làmb day indi ay stratégie day am plan A plan B plan C et que tamit booy bërëg genre adversaire boo xam ne il est coriace yow tamit da ngay waajal si wàllum euh, stratégie tactique bu ngay andi waroo indi rek benn tactique. Mhm. da ngay indi plan A si ne marche pas nga indi sa plan B les experts disent que Modou Lo bokk na ci mbër yi gën a naqaree bëreel ci làmb. tout à fait tout à fait Modou Lo bokk na si mbër yi gën a naqaree bëreel lenn gis naa ko si c'est un constat centre de gravité bu mu am. Modou mm. Lo gàttul njoolul il reste au milieu léegi nag en général mbër yooyu dañuy xaw a daaju. Mm. pour nga bëri ak ñoom yow boo nekkee njool da ngay sóoraale parce que njool dafay am laaf rallonge. Mm. et que ki nga xam ne dafa xaw a gàtt nekk au milieu dina mën a jaar sa intervalle yi. bien sûr ñooñu dañuy nakk rek bëreel. Modou aussi moom bi bëree à chaque fois du rester. une place. day daal di bouger. day dóor di génn lépp lu muy def daal day daal di bouger et que mouvement yooyu muy def. dafay nekk lutteur boo xam ne moom day nakaree bëreel mhm. dafay nakaree calculer mhm. koo xam ne bu jàppee mi ngi dóor bi génn mi ngi dóor à chaque fois dafay kor mhm. kooku tamit euh, il va faloir moom ngor def lu muy def mais maanaam entraînement bu ndoy doo ko doo ko doo ko doo ko fooye ba pare bëri avant tout lan la muy fit mun nga am buri toutes les qualités nga am doole wante boo nekkul bandi géew nu ko xale yi di waxee bandi géew doo mën a am loo bëgg foog nga am sañ-sañ mm. et que pour bëreek Modou genre yooyu noonu na ngay ñëw teg leen lu ñu attanul mm. mettre leen en doute mm-hmm. ki nga xam ne dafa am technique ñu ne kooku dafa daal di matal lépp am na xam-xam si wàllum bëri ñu dem ba tuddee ko xarañ loo kooku boo ñëwee il faut nga am plus loo ko xaw a ëppale mm. mooy lan dëggal sa bopp da ko tey bis bi lu mu ma jaral yow lu mu la jaral man tamit loolu ma jaral boo ñëwee dëggal sa bopp moom loolu da koy en doute maanaam nga teg ko tamit lu mu attanul arbitre bu sifflé nga dox si ko mais tamit da ngay dem ak calcul. boo ko tegee loolu teg lu mu attanul. Mhm. boobaa dina xam ne yéen ñaar di ngeen mën a weccoo à cinquante pour cent cinquante pour cent. Mhm. mais tamit bu dee na koy diriger te lu nga koy diriger gëmoo ko moom tamit bu la attaqué. mën mhm. ah, nañu wax ne moom safara la rek. parce moom benn la yow mu si biir géew. et tey jii nii pareegul sax kii ma gis sur l' état de forme physique. muy ñaari mbëri seen état de que. avant le 24 novembre sax dinañ gisaat beneen état de forme. Mm. ndax euh, mbeuri en général sen ay préparatifs. dañuy baye ba dernière phase bi. ñu mm. daal def li nga xamne moy contact. Mm. ta alors que contact fay dem ba xawa diminuer sa poids tuuti. Mm-hmm. ndax bo dajé choona da ngay dem ba gëna physique gëna a os. Mm-hmm. et que ki ma gis ni daal moy Modou mm-hmm. prégul pour céder li nga xamne moy la couronne. et que c'était bu si bëggee jot na san san mhm. ak lu munte am sénégalais yi ñëpp xam ne ne kii dëggal na bopam wane na bopam té lool nak mom la ñuy xaar té tamit ñu ñu ngi xaar dal un combat très électrique. voilà un combat très très électrique en tout cas euh, c'est un combat euh, qui promet. Euh, mhm. Modou ak Siteu ñaari ndaw lañu et puis on voit vraiment ben maturité bi nga xamante ni Modou Lo ko booy suivre carrière am bi mu démarré ak léegi. Mhm. mu indi benen style plus de professionnalisme plus aussi de de nan la ko mu tuddee c'est un athlète. Mmh. Il n'est plus un lutteur. Hein? Voilà, il n'est plus un lutteur. C'est que les gens disent. <laughs> c'est un athlète mm-hmm. vraiment. Puis d'abord, tu as des galades et tout. Tu as une image, un message pour que tu aies. Balla Gaye 2 moo ko daan deux fois et une défaite contre Bombardier. Bombardier. Uh-huh. et que dafa nekk mbër boo xam ne daal bul ko may sax mu réfléchir boo bëggee am ndam si kawam. Mm-hmm. xam nga actuellement combat bi des na. Euh, c'est le 24 novembre. Mhm. lu si des bëreetul. mais dañuy xaar open press mhm. pour faire une analyse plus profonde. Mhm. parce que foo nga xool. dernier état quoi. voilà dernier dernier état de forme bu ñuy andi. nga def une analyse plus beaucoup beaucoup beaucoup plus affrontée. et que loolu tax dañuy daal di coof rek. ñu bàyyi daal ba combat bi xaw a jege si incha ñu gën mi ngi c'était ça un peu euh, waxtaan ci football.